Bienvenue sur Salam Vision. ñun ñëpp ñu ànd ak dal ak ay teggin sëriñ bi ñu sëriñ baa ñëw mbokki Baye Fall yi jërëjëf sëriñ xaar egsi na kilifa gu tedd gu sell gi egsi na macha allah doomi sëriñ Fadilou Mbacke egsi na sëñ Modou Mamoun Mbacke mi nga xam ne fa tabaarakallaahu ñëpp ko ràññee ci taxawaay am solo ci yoonu murit ñëpp ràññee ko macha allah rabbi fii ci Parcelles Assainies muy jëmu ju sell yàlla na yàlla guddal fanam te may koy wér ci barke Cheikhul Khadim muy bés bu am solo nag ci yoonu murit waaye bu am bés bu am solo boo xam ne tam képp kuy julit képp koo xam ne waaye wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu anna muhammadur rasulullah war nga mën a génn wane sa bopp ndax lan mooy sëriñ bu mag bi ki nga xam ne ginnaaw yàlla ak yenent bi moo wut Seydina Muhammad di sëriñ Tuubaa Cheikhul Khadim sunu yaakaar teg ëllëg moom day ci dëgg-dëgg liggéeyal ko yokkute liggéeyal ko defaru la liggéeyal Serigne Touba mooy njëriñu àddina mooy njëriñu àllaaxira ndax lan mooy ki nga xam ne moo yaatal islam liggéeyal islam wala li nga xam ne mooy islam muy Serigne Touba Seydil Xadim moo tax Sénégal bu ngeen amee ngor ne leen jërëjëf Serigne Touba war na jàmm bu ne ndax lan l'islam bu yaatoo ci mi réew ginnaaw yàlla ak yonent bi Serigne Touba la Serigne Touba moomee nga xam ne moo jaayante ak yàlla doyloo yàlla yaakaar yàlla xam yàlla nangul yàlla nangu dogale yàlla wane li nga xam ne mooy lislaam ci mi réew moo tax ñu daal di tàmbali liggéey bi kon mbokki Baye Fall rek ñu daaneel foofu amin Allah amin barke Cheikh Khadim jëf kon bu ko defee rek ñu daal di waaj ñun ñëpp rek daal di dox ndànk rek ànd ak mbokku taalibe yi. mbokku Baye Fall yi ñu wàññi tuuti rek. fii nii xam waaw maanaam ñi nga xamante ne bii filmé wuñu ñu topp ci ginnaaw kii bi ñu jiitu dañoo bari mbooloo mi nekk diggante oto bi ak euh, affiche yi dañoo bari na mbooloo mi génn ni tuuti affiche bi ci oto bi léegi ñëw leen ñëw leen yéen na mbooloo mi wàññeeku affiche bi jege mbooloo mi wàññeeku mbooloo mi dox diggante oto bi ak affiche bi defee affiche bi ñëw ñëw leen yokk leen jéego yi waaw. waaw. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba defe Serigne Touba war nañ koy wax suba war nañ koy wax ngoon war nañ koy wax waxtu wu nekk waaye nag tey jii dañ koy fësal ngir ñëpp xam ne ci cant Seexul Xadim rek la ñu nekk ci lim ñu dimbali tey ak ëllëg kon nag ñu fas yéene déparé fii kër Cheikh Mouhamadul Mourtala Mbacke góor yàlla nga xam ne moom fesal na jërëjëf Serigne Touba ci àdduna bi yëpp ba fépp foo ci àdduna bi da ngay gis kër Cheikhul Khadim te ko ubbi mooy Cheikh Mouhamadul Mourtala góor yàlla kon lay mel ni buñ déparé fii ñu ngi gëm kër Serigne Fallou ngi ci Patte dox dox bu sell doxin bu teey ay jullit balaa ñoo doon i murit waaye di ay murit fas yéene doon saadin bëgg nag fépp fu nu jaar rek même mbalit yi fa nekk sax buñ ko mën a yóbbaale ñu ñu taxal dara bu ñu gàllankoor leen na lépp di dox ñuy wax jërëjëf Serigne Touba te ku nu seen xam ne ñii ay jullit àqan nañu waaye ay murit saadif lañu ñuy góorgóorlu ci góor ñi ak jigéen ñi sëriñ bi nee na ñuy bañ di jaxasoo ndax lépp loo xamante ni bii rek jaxase na góor ak jigéen day mel ni euh, boo xam ne daa ànd ak lu koy taal day yóbbu lool kon nañuy moytu jaxasoo bi comme noonu ñu ko organiser rek jigéen ñi a ah, xawaabu ala nisaa yi maanaam góor ñi ñooy jëwri ni jigéen ñi kon bu góor ñi jiitoo jigéen ñi topp ci ndànk ñoom ñëpp ñu wax jërëjëfe Serigne Touba ñu yokk kàddu yi tànk yi waaxu bu ko defee topp ci oto bi ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon Cheikh Modou Fadal mu jox la kàddu bi nga am loo soñ bokk taalibe bi waaw kon loolu rek mooy mooy mooy sabab bi bu ñu sañoon daal fépp fu jaar dañuy gis ne. ay jullit a ngi di dem waaye ay murid saalix a ngi di dem ci bépp fànn nag maanaam ci doxin wi ci waxin wi ci colin yi ci ñi ñuy dajeel ak ñi ñuy saafonteel ndax loolu da ci am solo lool ndax jamono ji dafa toll foo xamante ni bi am na ci ñoo xam ne lu ñu xool li rafet li ñaaw rek la ñuy xool di ko wane na nag lu jëm ci lislaam kon képp lu waay di def lu jëm ci lislaam na koy na nga koy na rafetal te di ko sellal te di ci waslu sa àq bu baax a baax ngir way ñi nga xamante ni bii yàlla daa dogal seeni jëf nekkul lu sell ba tax na dañuy xool lu sellul rekk ngir di ko wane te buñ ko wanee it fas yéene ci dara du dàkkal deru lislaam te képp ko xamante ne bii yaa ngi jëf loo xamante ni bii day gàkkal deru lislaam defoo ko kenn moo naa def ndax lislaam taxawee moom moo jóg ne ko maay nama dalum lislaam jëf leen ma jóor leen ma dinaa ko jàmm kon loolu lay mel moo tax ñu war a góorgóorlu bu baax ci doxin bi war a góorgóorlu bu baax ci waxin bi war a góorgóorlu bu baax ci colin bi ngir lépp dëppoo ak lislaam ñuy sant mbaay bu baax baax waaw dox bi ñu bàyyi ko bu baax ñu xaw a yokk jéego xanaa sant di wax jërëjëf di Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul di wax ne bis bii day symbolisé ndam lu rëy loo xam ne l'islam am na ko ci loxol noonu yoo xam ne l'islam tumuraanke woon na ci. ndax Serigne Touba mooy jëm ji nga xam ne man na maa wax ne jamono ju nekk waxtu wu nekk képp koo xam ne say tànk dafa féete suuf sa bopp féete kaw war ngay delloo njukkal di wax jërëjëfati Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul te Ismaïla béréb bii nga xam ne tey moo waral jataay bii ñu di ko fàttaliku ak di ci dundal Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul daf ciy la amoon te lépp jëm ci liggéeyal lislaam ba tax mu doon wax naan lil Mustafaa. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul wa inni a'uuzuhaa bika wa zurriyatahaa min seytaani rajiim rabbi a'uuzu bika min hamazaati sayaatiin wa a'uuzu bika rabbi an yahduruni di santaat Serigne Touba bu baax di wax ni mbokk yi lii su ngeen ko gisee xam ni am na xew-xew bu mag boo am muy lan journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ñu koy màggal ci àdduna wërngal fépp rawatina fii ci Sénégal ñu daje woon nag fii nga xamante ni mooy Parcelles Assainies ñu ko fiy màggal ak murid yi ak mbokki taalibe yëpp daje woon fii nga xam ne mooy mbaaru Serigne Moutala ñu fas yéene fee euh, tàmbalee liggéey bi ah, di dox nag euh, jëm fee nga xamante ne mooy capaduwa mbaaru euh, Serigne Modou Bousso Dieng fa la ñuy àggijee incha allah di wax ne lépp loo xam ne rek am na ci bis bi incha allah dinañ leen ko eggal ngeen gis li nga xamante ni noonu la jullit yi noonu la murid yi taxawee ci màggal ak kennal kii di Seex Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërëjëfati Serigne Touba kon mbokki taalibe yi mi ngi noonu ah, ñu taxaw ak ki nga xamante ni moom ci ñi nga xamante ni ñooy euh, jëwriñ ñi nga xamante ni ñoo jiite li nga xamante ni mooy euh, liggéey bi nga xam ni boobu ak léegi ñu ngi koy def jëwriñ ñu ngi leen di ñu leen jox seen wàccuwaay di wax ni liggéey bi boobu ak léegi yéen a ngi koy def ñu ngi gis mi ngi am ay jéego di gën a yaatu ana naka ngeen taxawee ba loolu gën a yaatu euh, ba communication bi ak lépp loo xamante ni warteef la ci bis bi ngeen def ko ba ñëpp jot ci ba mën a ñëw sant Serigne Touba ñu ngi lay ziar di jox sa wàccuwaay di la laaj ci bis bi. jaajëf ñooy sant bu baax ba jëlaane yow bis bi yow rek mën nga cee ndax yow da ngaa bokk ci comité bi. xanaa dañuy sant suñu borom rek ndax lii nii nit moom day jëm rek amaana jëm nañ ci suñu fànn fànn yu mun a ne wàllum communication lépp loo xam ne communication mu ngi koy laaj. jéem nañ ci suñ kéem kàttan waaye suñ borom mooy yaatal yaatal suñ borom moo koy def wala fax naa lakka dikraka loolu la suñ borom wax kon mbir bu yaatoo rawatina muy wooteeg suñu borom di wooteeg sëriñ bi moom moo ko defal boppam kon ñun waaye góorgóorlu gi ñu ci def mooy ñu xam ne dañoo toll ci jamono li ñu mooy lépp daa aju léegi ci téléphone yi ak ci site internet yi ak ci YouTube yi maanaam yu ñu tuddee réseaux sociaux ah, réseaux woow wàllu woowu la ñu gën a miser ci wàllum communication bi waaye nag li tuddee nag yeneen yi nga xam ne daan nañ ci def mooy lu mel ni daan bind ay couverture de couverture yooyu yëpp daan nañ ko def lu mel ni ay bande annonce doon ko yaatal lu mel ni ay communiqué doon ko yaatal waaye nag yaatal bi di ñu tuddee ci ci nopp ak ci ak ci gémmiñ lu waa yëg yëgal ko sa morom mën nañoo wax ne loolu mooy dëgg la yaatal di sant sëriñ bi ci wàllu wi rek jërëjëfe borom Touba waaw macha allah jëwriñ kaddu yooyu am na solo di wax ne bis bi bu ngeen koy waaj ak bi ngeen demee ba jégbal bis bi yan yëg-yëg ngeen ci am ba fi mu ne nii tey saa su nekk da ngay am pas-pas boo xam ne day yokk loolee tax benn coono doo ko yëg benn coono ndax yëg day liggéey gi day liggéey boo xam ne daay day dox ak wax la ndax boo nee na Bàmba daj àdduna kon doo doo toog benn place da ngay jóg dem kon coono googu lii tax doog a yëg mooy mooy yitte ji ciy def ak mbégte gi muy àndal loolu la waaye day day sëñ sëñ Tuubaa ci xol moo neex ba lépp looy def moo xam mu metti ci ñeneen lay doon wala nit di ko gis ci yow waaye yow mu koy def doog a yëg sant rek noonu rek la demee waaye yëg-yëg bi ñu am mooy xam ne liggéey sëriñ bi daa daa yemul ak dara moo tax saa boo koy def saa boo koy def da ngay xam ne moom mooy ki la ciy gunge yow da ngay góor waaye da ngay góorgóorlu waaye lépp moom moo koy def noonu nii rek la demee. jërëjëf jëriñ bëgg nañ bo bëgg nañ bu baax bëgg nañ bu baax ci kàddu yi. bu ñu tuubee di sant Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni daanaka li ñu laaj ni journée Cheikh Amadou Bamba bi ñun ku ñu xam xam na si Amadou Kara ci la ñu tàggat nampatal ñu Cheikh Amadou Bamba Xaadim Rasul ba mënuñu def lenn lu dul sant Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul bis bi nag bisu mbégte la ñu ñaan ku tedd ki Cheikh Ahmadou Bamba teg ñu ci loxo ndax yéen a ngi ci am mooy mbir mi taaru ñu xam kan mooy Cheikh Amadou Bamba ndax Cheikh Amadou Kara da ne Bamba fépp Bamba partout Bamba daj na fu ne ñun réew mi nag war koo wane wane bu wér a wér niñ ko mën a wane nag ci yar ak teggin ni ko sëñ bi tàggatee ginnaaw loolu nag ñu lay bëggee bu baax xanaa nañ jokkowaat ngir jërë yaatal daal jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul macha allah jërëjëf ñu ngi bëgg ci ah, ñu ngi fii tey bi fii ci mbaaru Cheikh Mouhamadou Moutala war a dem fee Padoua kër Serigne Modou Bousso Dieng tey nag ñi ngi fii ci salonnement soxna yi nga xamante ni ñooy ànd ak góor yàlla yi wala dox doxu euh, euh, match bi nga xamante ni mooy match Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul di wax ni jëwriñu soxna yi ki nga xamante ni soxna Awa maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay jëwriñ ji yaa Awa maa ngi lay ziar di la jox sa wàccuwaay di la wax sa yëg-yëg ci bis bi ah, mbégte la parce que sëñ bi mënuñu koo fay xanaa kay dañuy jéem rek ah. di jéem te jéeme du tax nu dab ko di kontaan nag wax dëgg yàlla kontaan na loolu di dund àjjana fi mu ne nii macha ba tey di Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaw mu nekkoon suñu mbokk soxna yi nga xamante ni waaw ñoom lañ doon euh, interrogé noonu di wax ni waaw di wax ni ba tey ñu nekk ak mbokki soxna yi ngi noonu soxna ummi bis baa ngi noonu nga soxna yi ni ñu di sant Serigne Touba bu baax nag xam ne ñun moom ay nit dong lañ waaw Serigne Touba nag daf ko jar dafa nekk koo xam ne maanaam daf ñoo liggéey loo xam ne ñun amuñu payam waaw wax dëgg neex yàlla ñun ñun ñun lii rek lañ ko mën a defal ndax bu dul durus xasida di di di di di dundee laa ilaha illallah amul leneen lu dul di ko ñaabal ba ba ba ba bis bi ñuy daanu Fall dañuy daanu de dañuy ñaaba daanu barki Serigne Saliou Mbacké jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf borom Touba jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëf Serigne Touba soxna Oumy jotaay baa ngi noonu di wax ni tey bis la boo xamante ni bis boo xamante ni kenn du ko fàtte di bis bu rëy bis bu mag bis bu àdduna di màggal di journée mondiale Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul jërëjëfatee Serigne Touba. jërëjëf Serigne Touba barki Serigne Touba kontaan rek barki alxuraanu karim billaahi di gën a féetale suñu kóllëre ah di gën a sant Serigne wér a wér a wér a wér saa su ne nag ñuy dund di ko di ko fekkee ni barki Serigne Touba muy gën a neex di jëm kanam barki borom Touba jaajëf waay. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne jaar nga maam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 Euh, di jëwriñ ci daara euh, Ahmadou Mouhni di wax ne am liggéey boo xamante ni euh, sumb nañ ko bëgg mu yaatu ci àdduna wërngal sëpp ñu am ci nekk ndigalu Cheikh Mouhamadou Mountakha di wax ni jëwriñ kon dañ lay bàyyi rek nga daal di àggale mbokki taalibe yi liggéey boobu nga xamante ni ma bëgg ngeen ko te ñëpp jëriñu ci. waaw kay jërëjëf sëñ Jeylaani mu lay siyaar bu baax di rafetlu liggéey bi di jiital si nuyoo beeg siyaar bi Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaanal yàlla saa borom. yàggal ko fi loolu te mu ànd ak wér waaw comme ni nga ko waxee rek eh, xasida gi ma sama loxo mooy xasida ak Ahmadou Mouhniyane nga xam ni xasida ak Serigne Touba la di lenn si nuru daare ni waaye xasida ak boppam la waaye sëriñ bi moo leen dajaleel boppam muy nuru daare ni yaa Seydi ak Ahmadou Mouhniyane Serigne Touba nag bam koy bind dafa woolu maam Thierno maam Thierno Birahim borom daaro ne ko ndax daayi wurus am na muy daayi or maam Thierno dem wër wër a wër mu mel mu mel ni lu xaw a jafe mu dikkaat fi sëriñ bi ne ko ah Mbàkke su amee de doon na lu jafe ndax ñoom duñu ñu wax sëñ Tuubaa déet mukk doo ko dégg mukk waaw euh, sëriñ bi nag ne ko su ma ko amoon nag moom laay bindee sama xasida gi di Ahmadou neen su ma amoon daayi or moom laay bindee sama xasida gi waaye sëriñ Tuubaa moo bind ilayya qaada Allahu ma lam yakuni wala yakuna abadan li mumkini moom moo bindaat maddalil xusna wa maddalil dayr nee na yàlla suñu borom daf may may la may may ba noppi ne ma ñaan ma ko kon bu ko bëggoon saasa day sotti waaye bëgg ñoo dimbali ñun taalibe yi bëgg ñu jëriñu amaana euh, moo tax mu laqal ñu liggéey bi ba ba jamono ji muri yi nag nga xam ni lépp lu sëriñ bi bëgg lu sëriñ bi mébét dañ si la ñuy xëy di si gont man ba ma njëkkee dégg xista gi dama ne sëriñ bi moom sëriñ Touba. lu bëgg lenn ci kaw suuf te du sotti ma tàmbale liggéey boobu ànd kook ay murit su mel ni sëñ Mouhamed Seck jaamu sëriñ Saliou sëñ Xaarim bëgg Bamba ñoom sëñ Alassane Diouf sëñ Ibrahima Gueye sëñ Fallou soxna Diarra euh, ak sëñ Basirou Mbacke moom moom sëriñ Mountakha moom ci liggéey bi la bokk ñu àndee ko ak ak kilifa yu bëri sëti sëriñ Touba yi ak sëti sëti yi ñu àndandoo liggéey bi defar maquette bu taaru bu xaw a nduróog lii dem jébbal ko Cheikh Amadou Mountakha ndax dañ ne la tafon la tafonlu cheyan bi xëyri isni doo def euh, doo doo tàbbi si dara lu dul danga saa am ndigal ñu dem ñaan ko sa ndigal mu jox ñu ko ñaanal ñu tawféexu àdduna ak tawféex alaaxira mu ne ñu tawféex ngeen fi ngeen fi doon ut si yéen waa daayira Ahmadou neen am ngeen ko jox ñu ndigal ñu yaatal liggéey bi si àdduna bi yëpp moo waral jotaay bii liggéey bi nag liggéey nañ ko yàlla suñu borom suturaal nañu ba ñu liggéey ko ba mu des ñaari page lépp 21 page la war a doon ñaar a des bu noppee ñu maas xasida gépp def ko si tableau bu mag page yi ngay gis ci tableau bu mag lay lay ne lépp doon benn ak décoration yi sa war a dem ba mu taaru yàññi loolu ñu ñu jàpp bés jël ko jébbal ko Cheikh Amadou Mountakha ne ko los soob defal loolu moo waral jotaay bi euh, xanaa di woo di ci woo murit yëpp rek jéggi loolu di si woo jullit yëpp ak bépp doomu aadama koo xam ne sëñ Touba mu ngi ñox ñoxi sa xol ñu ngi la siy woo xam ne bëgg-bëgg sëriñ Touba la woon di wax ni képp ku si bëgg a barkeelu euh, am na numéro Orange ne ak Wave muy 77 930 34 90 si turu sëñ Koso Jàmm am na Orange ne am na Wave képp ku ko si dugal da jàppal ne àgg na sa liggéey bi te dinañ ko si def incha allah siège bi mi ngi nekkee euh, Parcelles Assainies unité 3 waaw. kon noonu ñu ko déggee euh, liggéey boobu nga xam ne liggéey bu yaatu la di wax ni euh, muy xasida Ahmadou Mouhniya di wax ni ñu ngi ciy woo ñëpp. di wax ne ni ko sëriñ bi euh, mébétee woon te taalibe yi ama yéene euh, mottali ko di wax ne mi ngi noonu daanaka 21 euh, pass la woon daanaka ñaar a ci des ñu wax ne nag képp koo xam ne rek bëgg ci tabal sa yéene comme ni ko Diorine waxee numéro yaa ngi noonu di wax ne di sandaat Serigne Touba rek ndax amuñu kenn tudd Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba Diorine Seck ñu lay jërëjëf bu baax. jërëjëf ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. di rafetlu seen liggéey yéen waa Sunugal 24. macha allah liggéey bi taaru na lool. leen di sant bu baax leen jaajëfal leen ñaanal tawféexu borom Touba barke borom Touba. أفرأيت الذي كفر بآياتنا الرحيم sant yàlla bu baax ñu ngi ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam sant Serigne Touba radiyallahu taala anhu jërëjëf Serigne Touba jërëjëf jërëjëf Serigne Touba jërëjëf borom Touba borom Touba amul morom yàlla war nga téeméer Cheikh Ibrahima Fall di ñaan yàlla xëy na yàlla tàgguñ ci barkeem di sant Cheikh Mouhamadou Fadl di ñaan yàlla fayal lool ak fayal asma di baaxee di ñaanal Cheikh Mouhamadou Mountakha xale général bi mooy ñaari si loolu lépp ñoo koy wax que li ñuy liggéeyal ak li ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa lépp maa ngi leen sago dama fexe ko ànd ko moom barke ko di ñaanal borom kër gi Cheikh Abdou Bakar sëñ bi boo xamee sëriñ Ba bu ñaari si loolu lépp dañ ciy liggéeyal ak li ñu liggéeyal Sëriñ Tuubaa lii liggéeyal li ñu liggéeyal Cheikh Fadal lépp maa ngi leen sago dama fexe ko ànd ko moom. sëriñ bi noonu lañ ko ñaanal jàmm si tubaab yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw taaj bi ñaanal naaj yi ko yëpp ñaanal mbir yëpp ñaanal Sénégal ak ñi wër Sénégal ñaanal àdduna sëpp xam naa kàddu yi gàtt doon rek wax jafe nañ ko yàgg xam naa ndaw ko ndaay yi am na ñu bëgg def ne am na seen xel leen bu jox tuuti tàng te ñuy wàññi dara jafe loolu dañ tëj kàddu yi rek bu jullee ba rek daal di mën a ñaan daal di tuuti rek loolu daf liggéey leen di siyaare yi def di siyaare sëriñ Modou Thiam fi nekkal sëriñ bi dama ko doon sama jël kàddu gi ndax moo yor fànn sëriñ ci Dakar kon bu teewee ñun ay surgaam lañ doon ndax moo suñ moo suñ jëwuñ ci Dakar waaye ci maa xam taxam nangu muy def kon ñu waaw ñu di sant yéen ñëpp rek eh, mbokk yi teew yëpp góor ak jigéen ma ngay ndaw ñu daan léegi seen chérif bi nga xam ne rek moo jàng eh, xatmu bi te loolu mooy lépp ndax alxuraan moom mooy lépp Sëriñ Tuubaa lépp xam-xam itam kër gii nii wa xëy na wa wóolu si daal di ñu daal di yow nag si biir Sénégal kii daal di mooy sama diine alxuraan di sant mbokk yi baax yi teew sama yaara Mbàkke Sëriñ Mamor Sëriñ Moussa Mbàkke Sëriñ Moussa mbokk yi baax yi teew yëpp dañu koy mbokk yëpp rek doon yi teew yëpp ñu ma xam ñu ma xamee di fàttali ko borom kër gi tey itam Cheikh Abdou Sakhar Mbacké ak rakkam yu baax Cheikh Abdou Amine ak Serigne Sidi Mokhtar bi nga xam ne moo defoon liggéey liggéey bi fàttali ko ak bokk yi daan àndal liggéey yëpp te mu am lay xam loolu sànq xolam taw yi kan leen sëñ Babacar Dieng ak ak ak ñi ñu daan àndal lépp si Abdou Aziz Mbacké suñu Abdou Sakhar bi ak ñi ñu daan àndal ñëpp rek waaw Serigne Sidi Kan ñoom ñëpp rek nga xam ñoom ñoom ñoo daan liggéey bi te yàlla def ñu nekk beneen wet bi nga xam ne yàlla yàq yokk seen leer te yàlla yokk seen yërmande ak njëkk ci sa yàlla liggéey bi yaatoo yéen a ko yaatoo presse en ligne leen sant ngeen gërëm yàlla barkeel leen dafa leen jàmm dafa liggéey jamono ji yi communication lañ nekk jamono yi réseaux sociaux lañ nekk jamono yi presse lañ nekk bu defee yéen ci yëngu rek di leen sant leen gërëm yaa ngi àgg foo xam ne bu tóor yéen bu mën a àgg waaw kon nag àdduna sëpp ko si yow dañ leen sant leen gërëm day ñaan yàlla fa dem cat di sant ñi ci jël kàddu yëpp nag kàddu yi rafet na matériel na soit muy en anglais en français en espagnol ak en wolof wax ji matériel na mat na sëkk defe naa ne thème yi tànn thème bi tànn rek mooy ji mooy islam bi jàmm la xam-xam ak jàppale te nit ñi bu ñu amee jàmm am xam-xam jàpp leen rek jàmm la yàlla def te te Sénégal te loolu ñuy wax ne dañ ko a contesté dañ ko war a dugal ci biir ci réew mi toll la raw tension yu bëri na lii yu ñu tànn jën bi te ni nga ko traité am na solo lool gis naa bu ñu nekkoon di jàmm islam mën ne boo nee ne salaam ñu ngi déréglu ci bàttu salaam muy jàmm dañu ñu lay jàmm la loolu ñu nekk ku nekk rek da ngaa war a jëf jàmm di wax jàmm suñu tubaab demoon na jàmm soxla dugal bii soxla dugal bële yàlla na jàll ak usu salaama wa sannu fi lay wa nasunu yar wa anxañu faam ba waa léegi ba ko yëpp laaj ne lu gën a gaaw bi jamono bi dafa ñëpp mbir rek del joxe ñam del del saare jàmm bu nit ñi tuddee guddi di nelaw dugg di julli waaw en tout en tout temps am wa afsu salaam wa sannu fi lay wa nasunu yar dana indi ñam wala dafay doon xéewal dana tasaare jàmm te bu bu dee suuf seet ba ñu yóbbu dugal jëm seen borom yi ñuy kon jàmm dara jiitu ba islam yokku dina jàmm diine xam-xam lay doon ñooy la nation de iqra ba aay njëkk wàcc alquran mooy jàngal aay bu njëkk wàcc mooy jàng la diine xam-xam la diine kon jullit bu nekk dafa war a gëstu jullit juddoo ba li ñu ñëwee àdduna dafa war a gëstu jàng xam-xam boobu di xam diine tabaabun la soo solidarité diine jàppante jàppante boo xam ne islam da ko digle islam da ko jàngale yoon bi loolu ko tudd ngeen ko ay yoon exemple yu bare bare ci biir dafa li rek mooy mu aqaa ba nekk organisation bi li ko diggante muhajir ak ansaar bañ gàddaay jóge Makka dem Madina fekk ay nit ñoo ñu bokk la de ñoom dañoo jóge Makka nga day ñu ñu ñu sàmm seen pas-pas sallallahu alayhi wa sallam ñu xëjee ñu boole leen te mu nekk tànn bu ñu ne mooy jaay sa bopp ñoom àggu nañ sax ci am ñaari soxna da ngay bàyyi benn ba bu bu bu defee itte ba ba ba mu jeex nga def sa sa bopp. wala nag tànn bu jubal da ngay bëri ci ñaari soxna yëpp wala yooyu nekk buñ buuroo ba dina tànn bu jubal ñu jël wala am na gars yi bu ñu doon doon day doon na rek waaye ñoom seen gëm ak seen bëgg bu baax mën nañu ci am ñaari doon jël benn ba te bokk di am ñaari fas ba kenn te bokk loolu solidarité yàgg nañ ko nekk histoire bi daal moom la wàll ba ñu ngi tuddee si tubaab yi naan ñu ñëpp tuddee exemple si tubaab ñu ngi tuddee solidarité loolu mooy bi solidarité bi dana mën nañ ko fukk réew fu ne waaye li tasaare jàmm yi tam mën nañ ko fukk fukk réew fu ne damay wax te jàmmi Sénégal ak Sénégal yi koy lënd yi muy toll ñun ñëpp ngeen xam ko mooy ñaari mbir fondamentalement mooy mooy politique ak espoir ci la coow yi bare bare la te lépp jàmm la sport pratique la boo xam ne pour defar yaram la xëy na dem na ba nekk industrie léegi di di àll di indi xaalis waaye départ ba pour defar ci jëmm la woon dafa baax dafa baax ci jëmm baax dafa baax ci góor yi jigéen naka noonu ñëpp ko war a def mais mu dem a dem nag ba léegi nag business léegi business nekk industrie safar di générer ay millions sinon ay milliards loolu yéen a ko gën a xam beneen aspect bi mooy politique politique au départ dafa li mu nekkoon mooy di di ñëpp bokk dégg leen ko ba saytu leen ci biir ñëpp bokk nit ñi moom segg leen loolu kay jël ko fàttali ñaaw ndax yow moomuloo ko mayuñu ko jëndoo ko saraxuloo ko doonoo ko dañu ko dénk ba ba ba dara déterminé kon yaa yaa ngi leen di solo diggante seen koy yor diggante seen koy yor bu ca wax lu ñaaw ko def ko def bu déglu wax lu ñaaw déglu def na ak bu ñu nekk dafa yàgg histoire Sénégal nag dafa yàgg mouvement bi yéen mouvement bi yàgg yàgg yëngu yàgg bari violence waaye dañoo wax ne lu ci bëri génération yi ñu fekk ñu ci ëpp ne borom xam moyen âge bi daanaka trente cinq ans wala quarante dem jëm jëm suuf mais benn benn yi nga xam ne fekk nañ ko ñu dégg ko dañuy laaj bi day nekk président Senghor lu ne xew na te ñuy xew yëpp loolaa chronographe donc ne bu ko dellu ci histoire Sénégal ñuy xew bu mu la jàpp ñuróo na ci wet waaye loolaa chronographe nag jaxase na ay kër jaxase ay tariixa jaxase ay mbokk ñu rey ci ay nit bu ne xew waaye dañuy jubóo te président la nit ñi moo fi indi président Senghor defoon di jàng Senghor daa xam ne dafa dugg ci politique par accident da doon jàng def recherche ñëw Sénégal pour préparer une thèse sur la politique sérieuse des années yi ñu intelligent la ñu faral di convaincre ba bëgg parce que suuf yi ak ñuy dem di dem di dem di dem di dem ba ak réew ak réew réew politique ñu dem ba lu xew ay rayante am ay waxante yu jur ay problème bu nekk teew na lu ngeen imaginer rek ak ak nit nekk na meeting ñu dóor ko wàllu leen nit nekk na ñu jàmm baax ko faam ay kilifa dañuy dóor ñu waxante c'est politique ah dañoo dem ba def nañ ba ñu mujj booloo UGPE ak ak ak BDS ñu fusionné créé UPS Union Progressiste Sénégalaise bokk parti cinquante pour cent la bi Lamine Gueye di président Assemblée nationale de soixante pour soixante-huit loolu nga xam ne fii toll bu ñu dàq mu ko président diw ak président diw ñu ànd wala soo ko defee day liggéey président Macky Sall ak président Sonko ñu ànd liggéey soo ko defee ñu jëm waaye bu ñu ko dàq parce que politique la da am benn politicien bu mag daan wax ni Bismarck politique dara saxul ci lu dul géographie dañuy nekk sta stable en politique sauf la géographie am na ay jamono ku demoon président Senghor ak président Lamine Guèye danay ànd dañu ànd yow da ngay wuyu fi ñu toll nii. président Macky ak président Sonko ànd liggéey bu ñu ko am politique la. loolu xanaa du du du du du ëllëg àdduna nekk la te mën na évoluer donc lu ciy xew rek nañ ko war a taw moo tax tey dañ ñu tànn thème mu jàmm bi dafay lu ko soxla passion yi yëngu na passion bi lay waal liggéey yi gën a jéggi ñu gën di baax. Mm-hmm. te dara dara nag si saa yu baax yu baax ma leeraloon nañu ko. ne woon na politique moom résoudre ñaar bëgg faru ak bañ a faru rek résoudre bi doole ji bëri bëri ki nekk au pouvoir day def lu mu mën ak lu mu xam bu des au pouvoir hmm. ki bëgg accès accéder au pouvoir day def lu mu xam ak lu mu mën pour accéder au pouvoir ñaari dëgg la yooyu nag jëlul xam ne ñaaw jëlul saagante jëlul xakkante dëgg jëlul rey ay nit jëlul yàq alal li ma bëgg wax rek mooy dañoo war a delloo si xel hmm. delloo si euh, xam ne Sénégal ñoo ko bokk te it kuñ si dégg dara pour mbéy mi juddu nga ñaari yoroo te boo toogee juddu la ko yor. si nga xam naa ne mbaax mi newoon na. lu romb xëy na neex rek. ba mu jógee yàgg ba dafa dem sëriñ. maanaam pour su dee am yi xëy mu ñëwee. ñu lu romb xëy xëy na neex rek. ba mu jógee yàgg ba dafa dem sëriñ. kon nag loolu boobu rek da ngay nekk règle boo xam ne boo ko appliqué da ngay mën a ci bare bare te réew mi ko xam. boobu suñu tànn thème bi ba nit xalaat te dégg nañ ni ngeen ko traité gis nañ sax invité yi bari ko tuddee ko waaye bu ñu tuddee ngeen ko tuddee ko ndax lii mooy lii lii wala bëri wax handicap lañ coowul politique ak sport te dara jël ci leen ndax lu ci nekk rek day jàpp mais lu ñu dégg lu muy yëngu day am mandat la wala am nomination bu dugal bu yàgg yoroo ko boo toogee bu dugaloo ko yor kon li ngeen doon ko yor ngeen ko andi ñaaw ana président bi ñu président bi lay wax ana président Seck ñu ngi doon ak ñeneen ñeneen ñeneen bi fi nekk nag lu mu yëngu-yëngu rek dañuy daw Cheikh Abdoulaye bu baax bu mu tudd ñëwoon na mbir lu mu yëngu-yëngu rek da nga dana sa daw mais bu ñu seet daal nag bu ñu daw dañ laa yóbbaale lu mu yëngu-yëngu ay ay xeet ñu ko xeet ñu motivé bu ko defee rek ñu xamee ne ay jullit lañ ay Sénégal lañ ñoo bokk réew mi ñoo bokk njaboot ñoo bokk suuf mënuñoo tax feneen te li ñuy wax Sénégal fekk na ko rek kenn mënu koo xam dafa ko faral te na ko waral na ko faj te loolu la ñuy rek. ndax kooku xanaa bu ñu suivee loolu fay fay bu ñu ko xamante ñu xam li bokk xam ne mënuñu ko séddoo seen daan baax mu bëri daal wax ne ay nit ñu bokkee wax ne mënuñu ko séddoo mënuñu ko séddale kenn mënu ko jël bàyyi si morom dañuy rafetal bokk yi te loolu mooy réew kon réew mooy bokk yi loolu mooy diine Sénégal dafa tuuti dafa tuuti boo ko gisee sa mbokk la mbaa sa mbokk bu bokk wala mu sa xarit wala mu sa xarit bu ko defee wax lu ñaaw teg ñu leen def ñaaw xarit boo koy dëggalee te bu ñuy si ñàkkee ñàkk rek mën nañu ko bu dee la loolu seen laaj woon du mbir yëpp yëpp nga seen taw bi ndax bu ñu daal dañ laay bàyyi mm-hmm. ndax ay ay xel mu rus rek foog day fasaral rek bu ko defee rek war ko tànn bi mais xam ne nañ ko te it mbirum nokkeel na ndax ngeen ko traité ak jataay bi xëy na na ba mbooloo yi moom naa gën a rey cadre bi a changé mais valeur wax te mu doog a ko ko ko weesu su ma defoon grand théâtre wala sor wala soral na ko wala Moussa yi wala fu ngeen ko mënee wala si kees bu ñu faaw góor bi wala nag dañoo bëgg dañoo bëgg spectacle nga yëngu waaw ah, man de ça moom moom nit spectacle la am na yenn kii bi dara wax ne yàgg diw di def politique spectacle waaye ñu ne ñoo mel ni sax bay defee religion spectacle la ñu def loolu nag ci ñun la moom dañu bëri di ñu ko moñaale waaye ñu góorgóorlu rek te lu ci jàngale sëriñ bi jàng leen ci lii sëriñ bi xam ne lu ne lu ma la wax na ko lu ma la def dañu dem réew si tubaab yi réew ba tax ba ñor ñu coow li bëri bëri ñu mën naa si bëri bëri ñu ñàngal bëri bëri jàngale ko ñu ndax li mu ñaan jeex borom mu teew ko xam mais li mu wax yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ko war a wax sax mu xëy mu xëy li ndox lu ne ñaan na ko lu ne wax na ko lu ne wax ko yàlla boo yàlla borom te te yàlla te te te yàlla nan la dee te dégg sama lépp yàlla yàlla na soo xam yàlla nañu lépp day day day nangu jàmm daal yéen te it dafa war a sama yoon rey na leen nangu léeg nañ ko am mosu ko rey. xam nga lu ko doon lor kenn koy bàyyi noonu rek. da ci gën a kéemaay nag mooy bu ko dara doon lor nga tax mu koy bàyyi ko xas bu ko yooloon màkk wala taw wala dara wala dara bu ko xas day bàyyi rek ndax mu ne bu la dara day màkk nga di ko fa xas instant boo koy faxas sa xel ci loolu lay nekk dana génn ci yàlla. dara am rek yu gën dara war a génn xel ba génn yàlla. kon loolu moom nekk beneen soo ku ñu sa sëriñ man sa soppi may sa lépp da ngaa war a am auteur ci liggéey jëf nag dañoo wax ne dañoo wax ne bu taxoon ñaari mbir xam ci mu laa mos a dégg dara du ko mat wala kii bom xas ko du sol bu am poche ñun doom yi ne ko seeroon comme ñaari poche daa am daanaka xanaa lu ko ñu la poche bi waaw te boo dugal dara da koy waxee da koy dugal kii bi kii ko ba door a jëli sama dara dafay bon moom bu mus ko daf ne li tax amu ko mooy boo nee poche def ca dara dana am jamono nga soxla nga soxla la ci poche ba boo soxla la ci poche ba nag da nga jublu si di ko làmb mu ne jamono yëpp koy làmb sa xel ci loolu lay nekk te loolu dana gën ci yàlla. adduna bi ci biir bu jot ngir na xel ci yàlla ba am boo doon seet nga ne koo xam ne mos am bu mu am poche nga ne Serigne Touba bala ngaa wax waaw nga ne Serigne Touba bala ngaa wax ñaareel dégguma ko ci moom laa mos a déggee ku am ku dul am kon ci moom laa mos a déggee ku mësul am poche te poche kenn xamul lu doon ñun waaye moom li ko wax mu waaw ndax la tax mën ko wax parce que dina kéemaane ndax booy lamb dara sa poche instant boo koy lambee sa xel loolu lay nekk comme nga liggéey ci yàlla loolu moo tax bu koy màcc ba doog a kii ko fas kon kooku bu sa modèle bu sa sëriñ sa booyukaay da ngaa war a am auteur bi bare bare bare da ngaa war a dem cinq cent yoo xam ne waxoon ne rek bu baax baax na ndax soo mënta demee moom da ngaa war a njëkk cinq cent masse dañ ko def ñëpp ñu wax suñu masse rek te royal bu sëriñ Tuubaa da nga xam ne modèle li Tuubaa yee modèle la ci jàmm mu dellu ci xam-xam mu dellu ci solidarité mu dellu ci sëñ Tuubaa kuréel bu mooy mësta mësta na asaka asaka yi ak lu ko parce que asaka bokk bu tax a nag boobu maa am xaw la ak boo ko jël alal yi denc ko fenn mu am lu toll ni saa nekk fa at doo laaloo ko asaka doo ko wax sëñ Tuubaa denc dara bañ bañ nag asaka yooyu amul boo soxla denc dara amul tool amul dara amul bool amul amul amul coffre fort mu lu muy denc dara bu ñëw rek def kii kon dafa nar dana ne ko alal yi dem ci tasaare mu mel ni day xaw a ak solo dafa ka sadar madar banaan bu ko daa tur kii wa kaf bu ko daa tëdd léegi alal ji ñu sori day xaw a ak te du ko laal loo ko mën a jël tege ko lu mu toll nekk naa mu tege ko mën ko laal donc kooku sa modèle sa xel dafa war a daal li ma rek mooy ñu xam ne rek Sénégal ñu war a dalal xel gën a am yaakaar xam ne dañuy xam que ñun lu bari bari dina ma sanal te bu te nag dina dina ma sanal dañuy seen dal rek ndax buñ dal nañ ma ko ñëw yu bari waaw ndax ay xëy ñu ko waxee ñu seen dal dañu seen waaw pour pour que foofu mënu seen da ngay daan mbàgg fa mbàgg rek waaw loolu yàlla ñu yàlla ñu rek yàlla yàlla fa yàlla yëpp rek ñu sant ñëpp nag góor jigéen mag ak ndaw mbokk yi teew yëpp waa presse bi ñu waxee nag seen liggéey bu am solo moo tax ñu gën a sant sama mbokk yi te baax yi teew yëpp ci turu borom kër gi rek Cheikh Al Baraka nga xam ne moo ñu dalal moom kër gi moo yor liggéey lépp la koy def ci teew Cheikh Ndao Mountakha moom modèle la njàngale ma yi sëñ mu gis yoon xeer bi kon nag ñu ñaan ñu ñëwaat daal suñu bopp jàmm fekkate ko sëriñ te boobu ñu borom sëriñ yàlla yàlla woon yaa def ñëw Cheikh Ousmane gépp yaa def ñëw islam gépp te kon ñu jàmm ay xéewal barke ko bu baax dañu fekk ko at yu bari lool te nawet bi ñu dugg yàlla def ko nawet bu barkeel te 2024 yi ñu ci ragal lépp yàlla na accès jàmm yàlla jàmm te di gën ci Sénégal yi am na gën ci moom te gën ci Sénégal yàlla na am na gën ci moom lépp yàlla na jàmm ba coogati ko waxtaane barke ko bu baax yàlla yàlla fay aay yëpp wa axir naa wala naan alhamdulilah Bienvenue sur Salam Vision.